actu du jour ñu jukki leen li gën a fës ci biir euh, internet bi dañu koy dooree rek mbiru Ousmane Sonko ñu gis ne nag ndiki aljuma ji rek ñu génn rek dañoo daal di jàppoo lu tolloo ci 17 femmes rek di ay femmes Pastef ñu doon amal rek doxum ñaxtu jëm ci li nga xamante ni rek mooy di non à la ak immunité parlementaire u bi lee di Ousmane Sonko ginnaaw rek ba ñu ko dindee ndiki aljuma ji rek ñu daal di génn jigéen ñi nag daal di génnoon rek amal doxub ñaxtu ñu ngi tolloo rek ci 17 set euh, bokk na na ci rek seen porte parole bi di Maimouna Dieye ñoom nag daal nañ leen di tegoon loxo foofee rek ca cité kër góor gi ba nag tey jii ci altine ji ci la ñu daal di xamal ne defeere nañ leen ci ay 8 h rek bi mu jotee ñu gis rek ne député bi lee di Ousmane Sonko ba tey ji rek tegu leen ay gët ndax démb ci dimanche ji ba mu demee rek ca commissariat bu jëppal ngir daal di leen di gis dañu ko daal di tere rek mu daal di am accès foofee ca commissariat ba ba bët euh, benn yoon ba tey rek euh, ci faamu Pastef yi nga xamante ni bii rek ñi ngi amal seen euh, doxum ñaxtu noonee rek la daal di amee rek ca diwaanu Sédhiou ndiki tey ci altine ji bañ daan nañ leen rek teg loxo waaye ñoom nag nee nañ bañu ñu ci dara ndax li nga xamante ni bii rek teg nañ ko ci seen roddu leader bi lee di Ousmane Sonko duñ ci bañ ba dugg rek prison ndax nee na nekkul dara loo xamante ni lu jaar yoon la foofee rek ca centre de Casamance ba nekk diwaanu Sédhiou foofu rek loxo femme Pastef yooyu lee xëyoon rek di amal amal ah, seen doxub ah, ñaxtu ba tey rek ci arrestation yooyu nga xamante ni bii rek am na rek ci coowul Ousmane Sonko lekk ah, Adji Sarr yi bàyyiwul benn yoon rek dëkk bu sell bi rek di Touba mu di Mame Dame Lo ak Bada Ndiaye ñoom nag ñu nekk ay coordonnateur communal bu parti Ousmane Sonko bile di Pastef ñu gis rek Serigne Cheikh Thioro mbake moom i daal ne génn ne duñ ci bañ dara danañ def rek seen képp kàttan daane pare nañ lépp rek ngir ñu daal di libérer rek rek ah, daal dinañ leen di ah, teg loxo ñu wéyandi ba tey rek ci mbiru Ousmane Sonko ak kii di Adji Sarr ñu gis ne nag juge d'instruction bu huitième ah, cabinet bi daal dinañ rek janoo ak Adji Sarr waaye nag ba mu jàllee rek niki jeudi bi rek ñu génn gis nañ ne kii di Ndeye Khady Ndiaye rek moom rek moo ci daal di nar a toftalu ginnaaw rek ba mu jotee rek ab convocation am nag nar a janoo rek ak juge bi niki mercredi bi ñu dëtmal ci fàttali rek Ndeye Khady moom lee moom moo daal moom salon bi ñu tuppee suite Sweet Beauty mi nga xamante ni rek fala Adji Sarr doon liggéeyee mi daal di tuumaal lekk viol répétitif ak menace de mort jëm ci leader bi lee di Ousmane Sonko ba tey rek ci mbiru Adji Sarr ci la ñuy daal di dese ni ñu gisaat ci nag yeneen révélation yu bees daal di tukkee rek ah, ci famille Adji saar mu di benn tantam bu daal di génne rek daal ñuy xamal ne kii di Adji Sarr xale bu luubal la te téyewul loxoom moom tantam bi rek moo ñu ko daal xamal daal ñuy xamal ne ki nga woon euh, téléphone xamal leen ne leen mi ngi liggéey li nga xamante ni rek moo di massage ba mi ngi massé benn euh, ko xamante ni bi ku siiw la mu di Ousmane Sonko euh, tantam bi moom nee na xamul woon sax kan mooy Ousmane Sonko waaye ci noonee rek la ko xamal ne ko moom rek ab député la waaye nee na nag mu daal di gis ne ab complot rek moo daal di am ci mille mbir ndax dafa woon rek nijaayam di ko wax rek lu ni ba mu xamal ko ne ko lépp lu na ci fay rek na doon lu ko jar ba tax rek mu daal di d'accord ci mille mbir yi nga xamante ni génne na ko liñ ci jàngal rek moo di kii di nijaayam bi daal moo ko daal di influencé ngir mu daal di boobu lee uh, mbir mu mel ne nag dafa daal di nekk ab complot bu am rek tantam bi rek moo ñu ko daal di xamal nee na daal aji saa xale bu mës a luubal la te mustatee loxo moom daal moo ñu xamal uh, li ni mu ne moom am na ci ay preuve yu leer yu wane ne li nga xamante ni bii rek dox na ci diggante boobu boobule nekkul lenn rek uh, lu dul ab complot ñu gis na rek këru député bi lee di Seydou juuf moom nag dafa daal di tàkk moom nag député Benno Bokk Yaakaar la Seydou Diouf moom nag dañ koo daal di attaqué ña ko def rek li di ay xale yoo xamante ni bii dañoo rek daal di muur seen kanam ba kenn xamu leen ba jamono ji rek ñuy wax ak yéen xale yi def li ni mel xamagu ko buñ sukkandikoo rek ci Dakar mi di moo ñu xamal ne famille Seydou Diouf bi xamle nañ ne amul benn yoon rek perte en vie waaye nag am na ay dégâts matériels yu bëree bëri ba tax rek police nag daal nay ubbi rek ab enquête jëm ci mi mbir pour ñu xam rek ñan ñoo def boobule ñaawteef ñu àddu ci leneen naan bébé Saloum ñëpp rek daal di koy xam rek muy ab mbër moom la ñu daal di rek euh, teg loxo ba jamono ji rek ñuy wax ak yéen ma nga en garde à vue gendarmerie bu euh, Kër Massar buñ sukkandikoo rek ci E-Media lam ñu xamal rek mu di ab groupe la bu doon def di yëngu euh, ci wàllum faux billets ba tax rek ñu jàpp leen ak un million de francs CFA nekk nañ nag cinq personnes kii di bébé Saloum nag moo ko daal di juróom-benneel mu desaat nag yeneen i nit yoo xamante ni bii rek police nag ma ngay wéyal ab enquête am na rek euh, teg loxo mu di l'enquête ba nag ma ngay amee foofee ca brigade bu euh, Kër Massar waaye lutteur bi rek la ko daal di mooy dañ koo piégé daal di fekk ci moom valeur 3 millions rek ci mercure boo xamante ni rek moom la ñuy utiliser ngir di amal rek euh, seeni faux billets ba jamono ji rek ñuy wax ak yéen mu di bébé Saloum ak cinq personnes yi nga xamante ni bii rek tegagul nañ leen loxo dañ leen defeere ni ki suba rek ci talaata ji lépp lu ci fasaa rek dañ leen ko indilaat suñ yeneen ni jotaayu xibaar dañu appel laayeen bi nga xamante ni bi rek dafay am euh, chaque année ñu nangoo rek ci Seydina Mbañoon Laay Thiaw nekk doom ci xalif général des laayeen moo daal di xam ne rek ni ki démb rek ci dimanche ji ngir xamal ne appel bi rek dinañ ko amal ren waaye dañuy soppi rek anam bi nga xamante ni bi rek doon nañ ko ko amalee ndaxte jamono ji rek ñu nekk mu di jamonoy mbas ñuy tere lépp luy ab dajaloog yu ni mel waaye teewul nee na ñoom daal dinañ am rek bile appel waaye nag dañuy daal soppi anam bi nga xamante bi doon nañ ko amalee maanaam ñu respecté lépp loo xamante ni rek da di euh, mesure barrière yi kër euh, docteur digle nañu ko daal di respecté bu baax a baax te daal di ñëw rek amal euh, bile appel lii rek moo fi gënoon a fës ami internet yi di dajale lay doon ba ëllëg ak jàmm.